ne fi la bàyyi ko réew mi nag moom metti na ba maara taali ginnaaw nag yokk mburu gi nga xam ne am na ba ñenn ci ko ba maara de taali maanaam chômage xam ne nekk na Sénégal loole tamit bëri na ay ndaw ñoo xam ne dem nañu ba mënuñu ko supporter maanaam ñàkku xëy gi yéene kaay gi moo tax am na ñenn ci askan ñoo xam ne nee nañu état bu Sénégal farata ji ci boppam la ñu xamul ñu def mukk priorité nga xam ne askanu Sénégal amee nañu ko ñenn ñu nee nañu état bu Sénégal seen nga ñu si jamono ji la li ñu tal mooy ana nan la ñu lijjanti ab xaalis ba financer seen liste yi ba pare dépense yi nga xam ne amul benn njëriñ yoo xam ne moom la état bu Sénégal nekkee ak nag yàqu xaalis gi nga xam ne moom la gouvernement bi nekkee loolee ci boppam a dakk ñenn ci askan wi ñoo ko ngi ci journal bi di réew mi quotidien yéen a kaay gi de la témoin nee na en tout cas li amba de sall mooy dëkk bi jamono ji na ba maara détaillé ndax foo làmb rek dafay metti waaye nag ñi nga xam ne ñoo jël nag seen facture yi dafa cher ba jéggi dayo te ndox mu mi nga xam ne moom la ñuy jox askan wi loolee waa seen vidéo ñoom teguñu ko fenn am na sax ñenn ñoo xam ne ndox ma mee munuñu ko gis yéene kaay gi ne lu jëm ci wàllum njàng njàngale mi jamono ji dafa daal di salfaño bi ne université yu Sénégal jamono ji tension bi daan na yéeg yéene gi di Sud Quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky niki démb ci conseil des ministres daan nay naqarlu bu baax a baax recrutement anarchique bi nga xam ne moo am ci fonction publique bi yéene kaay gi di mandat université yi nga xam ne jamono ji maanaam dafa pëcc ko Macky Sall ci ceebu jën bi la doon wax waaye nag li am ba la mooy jamono ji koy songo ba pare bëri na ay njëg yoo xam ne daal di yokk ba maara détaal yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu musiba am na ci CEM bu Wakaam niki démb dafa am benn élève boo xam ne da doon def éducation physique maanaam tàggat yaram ba mujjee nag ñàkk bakkanam journal bi nee na yóbbu nañu ko hôpital Dantec ngir nag daal di amal li nga xam ne mooy ab autopsie waaye nag waajuram góor jamono ji dafa mer ba maara day taali ndax nag nee doomam joojee lu toll ci fanweeri tuur lañ ko dawloo te du sportif yéene kaay gi di Vox Populi nee amul benn université bu nekk ci réew mi boo xam ne jamono ji yëngu la université Cheikh Anta Ndakaaru dafa pëccëxoo ba maara day taali université Gaston Berger ba sa Saint-Louis dafa pëccëxoo ba maara day taali université Alioune Diop ba sa Bambey dafa pëccëxoo ba maara day taali yéene tëjuñu leen sa kaso ba yéen a kaay waaye nee na conseil des ministres démb bi lan moo tax Macky Sall waxul ci université yi di fa wax mbirum ceebu jën yéen a kaay gi di laas xëy ñu naka secteur bii nga xam ne moo jëm ci wàllum wér yaram gi na ay assemblée générale ak ay dépôt préavis de grève ak ay marche nationale la fa gis li ma gis yéen a kaay gi mooy ñi nga xam ne ñooy médecin ñi doon liggéey ci centre de de motivation fa yëngu coow topp na leen ndax nag syndicat ba ñoom dañoo gis ab rapport boo xam ne dafa jox xar bi baaraamu tuuma directeur général ba di Amadou Jean Jacques Diop ñoom nag nee nañu dinañu amal li nga xam ne mooy ab grève fanweeri fan ci weeru décembre yéene gi di Vox Populi xëy ci coowul trafic passeport diplomatique yi nga xam ne jamono ji coow li dafa wulee ñaay yéene kaay gi nee na am na ñaari gendarme yoo xam ne ni ki démb waa di que déglu n leen tey jii tamit danañu leen dégluwaat yéene kaay gi di libération nee na magu bi nga xam ne moo am na ci trafic passeport diplomatique yi dox diggante résidence ak affaires étrangères maanaam maguy boobe nag toll si ñetti at ba ñu ko commencé def maanaam ñetti at la yéene kaay gi de la tribune nee na attention am na lu toll si juróom-ñaari téeméeri junni ci nit ñoo xamante ni ñooñee boo muytu leen xiif dina leen rey Jurbel Kanel Bambey yéene kaay gi nee na Sénégal nag bu ñu waxantee bokk na ci réew yi nga xam ne soxla na ndimbal ci lu jëm ci wàllum aide alimentaire yéene kaay gi de Les Échos nee na fépp yëngu waaye nag fii nga xam ne mooy police police tamit yëngu na ndax ñi nga xam ne ñooy gémi yi xam ne ñoom la ñuy yebale ci làmb yi ñoom tamit ñoo ngi jamono ji seeni prima yéene kaay gi nee na nag ki ñu joxar bi baaraamu tuuma mooy lieutenant de police Jibril Moussa Camara yéene kaay gi di libération ne na scandale am na fi nga xam ne mooy Sahara société africaine de raffinage yéene kaay gi nee na benn marché gré à bu toll ci deux cent milliards moo fa am yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na Parcelles Assainies unité 17 foofee musiba ma bu kumba gu rëy moo fa am dafa am benn jigéen boo xam ne nee na ab commerçant la fekk dafay jaayaale yamba yéene kaay nee na teg nañu ko loxo fekk ci moom lu toll ci fukk ak juróoma cay ko